aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare noo ngi ci eh, fanweereelu jotaay ak juróom-ñaar ci téereb Xalimag Leer noo ngi woon ci wet gii nga xam ne daa jëm ci wàllu sant maanaam ni sëriñ bi di sant ci ay xasidaam cant googu nag eh, am na xasida yu mu defee ci géej gi yoo xam ne xasida cant la lu mel ne ruma shukuru lazi ak wala xadd karam naak yu ko niru noonu la amee xasida yoo xam ne gànnaar la ko defee muy xasida cant lu mel ne minanul baqil xadim ak wakaan xaqan su ko defee nag dinañu jël benn benn ci xasida cant yi leeral ni ci sëriñ bi di waxee xaside cant yi nag weesuwul eh, di tudd may ko yàlla defal di ko ci sant yaa ma defal nangam maanaam delloo njukkal yàlla daal ki xewu lim ko defal ak fegal gi mu ko fegal lépp loo xam ne ay lor la bokk na ci xasida yooyu xasida rum naa shukur di xaside la goo xam ne sëriñ bi ci géej gi la ko bindee di ci fësal lool ak cant ci boromam ay bayitam moom xasida googu toll na ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent 89 bayit sëriñ bi da ko tënkee aaya bi mooy rabbi awzi'aniya an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala tardaahu wa adxilni bi rahmatika fi ibadika saalihin aaya bi sunu boroom da ciy nettali waxi yonante yàlla Suleymaan moom da ciy ñaan yàlla defal ko tawféex ba mu mën sant xéewal yi ko yàlla defal moom ak ay waajuram di ñaan mën jëf lu baax lu yàlla gërëm te yàlla tàbbal ko ci biir nit ñooy nga xam ne nit ñu baax lañ kon aaya boobu rekk di ci xamee ni sëriñ bi daa nama sant boromam bu baax ci xasida gi xasida gi bu nu ko jàngatee dëgg des na ci gis may yu kawe sëriñ bi di wax ne yàlla defal na ko ko ci jox gu ko yàlla jox lépp lu mu ko doon laaj waaye ci musal gu ko yàlla musal jépp lor joo xam ne doon nañ ko jëme ci moom wax na ci biir xasida gi ne def naa ay xasida jëme ko ci sama borom di ko ci sant ndax moom sama borom jox na ma lu kawe sama njort zintul qasaayida lil wahaabi ashkuruhu biha wali saaqa ma qad faaqa madnuni ba tey des na gis tabek sunu borom gi sëriñ bi di ko tudd fu mu toll maanaam tabe gi yàlla di jëflanteek moom di ko jox rek ay may yu tëw a dakk bay wax ne sama borom maa ngi déeyaale ak yow tey yow mi nga xam ne danga ma nekkal ci ay teraanga sag tabe fàttiloo na ma samay nattu naa jeytikol yow ma yaa man kuntali karaman yaa mughniyan juruhu bal waaya yun siini mboolem li sëriñ bi dundoon ci ay nattu ci ay jaar-jaar dund ko ci ay jafe-jafe daa mujj fàtte lépp ngir xéewal yu bari yi ko boromam defal ba tey mi ngi ciy wax ne bind naa ci géej gi bind naa ci géej gi ne duma mas tàllal sama loxo nasaraan yi nga xam ne nit lañuy jaamu katabtu fil bahri anni laa amuddu yadi ila nasaara abidil ma iwattini moom Sëriñ tubaab dafa doyloo yàlla lool ba nasaraan yi mosu leen a tàllal loxo mukk ngir ñaan leen ñaan googu nag jubluwu ci ñaan leen alal bàyyi ko niru waaye sàkku ci ñoom ngir ñu bàyyi ko wala ñu féexal ko wala ñu may ko jàmm ak yu ni mel niki koo xam ne dañ koy téye ci barab li muy faral di sàkkoog yooyu xeetu sàkk càkkutéef yooyu lay wax ni mësu koo sàkku ci ñoom mosu leen a tàllal loxo lépp boroomam la ko doon diis boroomam la ko bàyyee waaye mosuñoo xam soxlaam su mel noonu kon noo ngi am foofu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.